waaw jërëjëf euh, Medina TV euh, kontaan na trop seen appel bi ndax dinañu permettre ñu leeral euh, lu tuuti yéen moom ñu ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ñuy gërëmee di sant tous les autres organes yi nekk sur la place médiatique de la Médina nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib di leeral askan wi lu bëri. donc concernant euh, problème du sax problème mais affaire Omar Sow euh, may fàttali ne Omar Sow si bataaxal bi mu ñu jébbal wax dëgg wax si ne dafa génn CATB loolu il mu leer si bopp nit ñi Omar Sow reste un compagnon li mu wax mooy que ni nomb tànk biñ ko joxoon biir CATB daf ñu ko delloo ndax xëy na dafa jàpp ni dañu war a réorganiser wu waat après échec bi nga xam ne am nañ ko du sax défaite échec parce que organisation boo gis day dem si ay échec dem si ay échec ba xëy na un jour yàlla jox ko ndam donc Omar Sow dafa tekki ndomb tànk xëy na biñ ko joxoon waaye bàyyiwul CATB loolu il faut mu leer si boppu nit ñi Omar Sow c'est un jeune frère un compagnon koo xam ni on a des relations Ah, man moom ay wéyjuram samay wéyjur lañu man samay wéyjur ay wéyjuram lañu donc foofu la ñu toll ma ndax moom et bamtuwaat na ko waxaat na ko ne ñun suñuy ay conviction politique ñoo ànd ba léegi euh, donc encore une fois Omar Sow reste un compagnon bu loolu wéyee nag may xamal rek ne effectivement la CITB est en train de se réorganiser parce que nag boo jógee si campagne bu mel nii dafa am njàngat yu bëri dooy def moo tax dinañu toog waxtaan parce que la CATB est une famille avec euh, des hommes et des femmes engagés vraiment ma si profité di leen delloo njukkal encore une fois mais dinañu réorganiser wu ba nga xam ni wax dëgg euh, jongante yi nga xam ni si la ñu jëm dinañu gën a wane suñu bopp loolu daal laa amoon lu may leeral di leen gërëm di leen sant di ñaan nag euh, les acteurs politiques et les leaders Euh, à la Médina ñuy gën a ànd ak yéen dinañ accorder ay interview di def ay débat parce que suñu askan moo laaj loolu saa su ne dañ leen war jëlal leeral mbir yi di wax ak ñoom à travers euh, les médias donc loolu maa ngi koy ñaan tous les leaders qui sont à la Médina jërë ngeen jëf e mes encouragements encore une fois à très très bientôt